man ñëpp xam nañ ni ci politique xalifa Sall mooy sama mentor mooy sama mentor soo am war ji ni maa ngi moom a bokk kër googu ndax Khalifa moo ñu ko dénk ni daf koo doy te man waxu démb mooy waxu tey léegi bi loolu amee ba ko Khalifa dénkeeg léegi jour boobu ba nëgë ni maay premier adjoint am buy tukki man lay dénk kër gi maa yor ville de Dakar nan mais doon maire ville de Dakar ba keroog muy ñëw est-ce que tey mën naa wax ni xaw ma ci dara bi ñu demee ba fan yi mujj rek maa ngi jooy fu nekk naan Medina des nañu ñeenti tali yi ñu defaragul moom mu ñëw ni ma bàmba fayal naa la ñeenti tali yi ba fayal la ruq bu sew bi nekk jekko loolu loolu am na lu mu def ci man parce que nga defar Medina mu des ñeenti tali mu ni ñeenti tali yooyu ak yeneen ak ruq yu sew yi sax jël naa ko en charge ba boole nañoo ki koy defar pour balaa yàgg mu defar loolu kon soam dama koy wax waa Médina ruq yu sew yëpp dinañ ko defar incha allah ruq yu sew yëpp ci medina bi loolu weesoo terrain Gibraltar ñu soxla koo defar mu génne 200 millions tekki taaba ñi Bamba maa na ko jàppale. ma ni ñu war a defar terrain jaraaf moo ko tey Soham Wardini ñu war a rembourser Thierno Seydi mu génne 200 millions dimbaliwaat ma. ma ñëw ni ko ñun de suñu budget dafa tëj te xëy na yow tëjugoo waa Jekko la war a toj seen jàkka ji ah man de maa ni leen bind leen lettre maa ko bind sax ni ajaa tàppe ko ñoom ñu signé ko ba pare ma jël sama bic bind ci kaw nii man d'accord naa pour nga dimbali leen en tant que premier adjoint mu ñëw ma fekk mu woo ma ni ma bàmbakat sa gars yi may naa leen deux millions pour ñu commencer toj jàkka ji ma ne ko madame le maire deux millions ndaw na ndax jekkoo jàkka ju rëyee rëy la toj boobu ak yóbbu gravats yi dina métti ci ñoom loolu ndax temps yi yoruñu ko mun na ko def naa ko cinq millions ma ne ko da nga ni sa doom te doom a gàntu defal ma ko dix bokk mu ne ma ci ma ne ko waaw mun na mu gëm toog ba saaga signé dix millions yi kon boog kon boog waaw ma ne kon boog ma boole koog samay jigéen ñu déglu rek ma bolé ko ak samay jigéen ci fode bi victoire yi may dégg ñu yobbu ñu yobbu plus de 50 dossiers benn dossier kese lañ ci financé gul ndax da am kayit du manqué 49 dossiers lañu ñu financé fode association yu groupement medina yi amna 49 financement yu soam guéné jox ay jigéenu medina mais kon kooku est-ce que sama ngor war na maa may ma walé ko yalla nak moy ki fal yàlla mooy kii moom wante de man de damaa doyaloon ci lu bari ci politique ak ci yenn maire yi man dama ni woon mairie dakaar du ma fa nekkaat adjoint au ndax maire bi moom mosuma koo bëgg jamono ji moom mosuma ko dès le départ du ma candidat maire Dakar wante ci maire yi fi nekk amul kenn kuy jiitu may doon sa adjoint du ko def su ma ko naree def su am lay nekkaat. amul ko xamni tay ci ñi fi nek gën ëpp nga ma expérience ci maire yi amul ak ci politique parce que tay candidat yi fi nek ban expérience lañ ma ëpp man mi def plus de 30 ans de parti quatre-vingt-six ne nga ne conseil municipal nek adjoint au maire secrétaire élu adjoint au maire maire nek nek 12 ans 13 ans adjoint au maire de Dakar ba nek premier adjoint dina nangu ku jóg rek ñi ma kaay ma mënul nek mais su su am xëy na suñu destin moo ñu boole ci loolu mu jiite ma façon bu rafet kon su ma dee nit amatuma lu may wut ci adjoint au maire wante nag comme que dafa am lu ma mosal mu jig waa Médina mooy nangu na ma jàppale samay jigéen nangu na ma defaral samay terrain yeggaleel ma samay tali taal ma samay làmp ba pare ñu waa jekko su ma faluwaatee naa leen may deux cent millions ngeen yeggale jàkka kon yaakaar naa ne comme que kenn digguma leen moom kese moom ma diggagum ma jàpp ci li ma gis ba keroog may gis leneen